Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Euh, mbiri grand Ousmane Tounkara ma barke la xam nga li ma leen wax chaque jour man baaxoowu ma mbir ni këtt ni tëpp ma def ni ñëpp ne për ni ni prib ni cëpp dal ci dara déedéet da ngay toog ndax olof yi dañ leen wax ni bu ne tekk rek la yoon waaw Pape Fall maa ngi lay ziar wér euh, naa la wér-wér amul layam layam waaw ziar naa leen kulli ah boo leen bàyyi ma dem de ah ma ma taalal de bu leen bëggee Omar Diallo ba ba leen bàyyi ma taalal incha allah soo mënu ma woon tëb tëb rek nit ñi di waxal wax mais Grand Ousmane Tounkara ñun li li nga xamante moom la biri demee nii rafetlu wuñ ko te kontaan kontaanuñ ci te kenn du yaakaaruma képp ko julli sa doo ci kontaan ndax te dafa am lu ñuy jiital ba pare. mooy nit buy wax ak mer nit buy wax ci lu ko naqari ci réewam nit buy wax ndaxte dafa am lu ko métti ci ni Sénégal ni muy doxee mooy tax mu wax ba wax lu ëpp mooy tax mu wax ndax la wax dani ni balla bu xasee ba génn rek génn na donc kon am na ñoo xam ñu ngi commenté naan grand bi li mu wax dafa ëpp waa du ma ko yërëm nañ ko état te ci yoon saa waaye nitay juum il foog ñu xam loolu nit mooy juum nit dina wax ba wax loo xamante ni li mu wax Macky Sall sax day wax yoon barki démboo Ndiaye wax yoo xamante ni ay soo leen vacciné ma delloo ko si lañ ko ni changé ma ko def mooy juum premier ministre barki euh, ministre de l'intérieur barki démb la génn juum nit mooy juum ci ni muy waxee donc kon ñun bu affaire bi amee nii dañuy ñëw taxaw indi suñu support ci grand Ousmane Tounkara parce que bëggam Sénégal ak ak ak ak bëgg mbaaxu Sénégal ak yéene Sénégal moo tax coono bi moo tax li yëpp dal ko lépp fekk ko ci moo tax Assane Diouf moo tax Assane Diouf li ko dal dal ko Guy Marius Sagna Karim Xurum Xaq ñoom ñëpp seen bëgg Sénégal la donc jàngat bi ñu ci war a am mooy buñ jël mooy parce que ni mu waxee dafa rëy wax bi dafa ñaaw certes bu loolu amee mais il faut que des ñu xam ne ku nekk bu ko jugé nit ki boo bëggee ngeen nekk ci jàmbat da nga koy jugé ko jugé moom ci jikkoom ndax jikko boo ci jugé doomu aadama rek doo ànd ak kenn mais nit ñi danañ xoolee ne sa bopp loolu ñu kilifa diine yu mag rawee woon ñoom buñu daan ki xool nit daaw ñu xool ay yebam seen seen seen seen koy jàppee seen bopp rek loolu leen mooy may ci lu Sonko tey grand Ousmane Sonko dafa soxla képp kuy laal bépp patriote a képp ku nekk APR foo ma nekk ñu supporté ko jàppale ko ndax xam nga dañu koy jàppale menaces yooyu taxul ñooñu dee taxul ñu rey leen taxul dara am ndax tey Sénégal tey réponse bi Macky Sall teg tey yaakaar naa ni moom moo gën a ëpp njariñ que na leen tëj Ousmane Sonko na leen ko jëlee Amérique yóbbu ko Sénégal na leen def li leen def laa parce que Macky Sall tey lii mu taxawee nii commencé ko def moom lañ koy xaar mooy commencé teg ay actes yu ministre yi yéenay commencé réparé seen bopp seen i oto fonctionnaire yi yéenay commencé jël na seen assurance ñun ak ci yooyu moom Macky Sall commencé teg loolu lañ ko sant loolu mooy njëriñu firwi li ñu xeex donc mais rapatrier Ousmane Tounkara amul lu mu leen yokk c'est-à-dire il faut que ñu bàyyi yenn euh, euh, euh, nit safaan ñeneen nit musiba loolu amul benn njëriñ gis nga jullit war a fexe say su rek ngay yéene doomu aadama lu rafet parce que la ko jiir tey Ousmane Tounkara li mu xeex ngir assan Diouf yëpp xam xamuloon ni lu mel no noonu la ko état di taqal moom tamit ñëw jëlee jëlee ko fi bi ko jëlee bi ko bi ko jéem a yóbbu Sénégal te incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a sotti yàlla mën na bañ a sottil pexe noonu mën na bañ a sotti pexe koo xamante ni jubul yàlla bu yàlla sottil pexe gouvernement Sénégal li ñu bëgg yàlla mën na ko yàlla na ko suñu borom def parce que ñun li am rek chaque mooy di ñaan mooy li ma doon wax ci problème Ousmane Sonko mu tàmbalee man bokkuma ci live kat boo xam day ñëw fii di sos di saaga di wax lu ma comprendre laay bit laay wax lu ma maîtriser ci laay wax lu ma maîtriser du ma ci wax te su ma waree joxoñ baaraamu tuuma sa état Sénégal dinaa ko defee à ma manière waaye du ma vexé doomu aadama ci waxin boo xamante ni yarewuñ ma noonu ma loolu damaa bëgg mu mu leer ba nit ñi buñ ma jéem a chaque instant joriñ génnal génnal du ma génn façon génn boobu te su génnee à chaque bu may wax li may wax dina méngóog li Ousmane Sonko bëgg li nga xam moom la moom moom laa gisee ni moom noonu la war a doxalee loolu benn la donc euh, ñun ñëpp na leen ñaan yàlla yal na ko yàlla rëccale jëmale ko ci pexe bi parce que bu kenn xeeb sa làmmiñ ku nekk mën ngaa ñaan fekk sa yàlla sa allahuma lay nangu allahuma yow bi nga bul xeeb sa bos yàlla na yàlla nangu allahuma bi nga xam da nga Ousmane Ousmane Tounkara yàlla na ko yàlla génne ci jafe-jafe yi ba nga xamante nii lenn lu ci état Sénégal bëgg loo xamante du neex njabootam du neex ay soxnaam du neex soxnaam du ci am bu ko defee mu toogaat ak fii ak njabootam parce que dañuy xool ni mënoon na dund euh, ni ñu koy waxee fii ci Amérique ak njabootam euh, discrètement sans dara sonal ko mais bëgg réew ndax ay doomam yëpp ki lañ juddoo jabar fee nekk kon donc bëgg réew moo ko tax a nekk ci combat bi mooy ñun ñi mooy man mooy keneen ak keneen donc des fois bu nit ki nekkee situation ñun ñëpp na leen ko indi suñu soutien suñu soutien taxaw ci ginnaawam état Sénégal tamit ñu xam ni doomam yi muy toog di leen woo ci biti naan ay terroriste lañ fi nga tey man mii mën nañ maa woo suba ni ma terroriste laa yow mii seetaan nekk bitim réew suba mën na parce que il faut woo sa doomu réew neen ay terroriste la ñu ñuy xoolee bët boobu wala ñu koy waxtaane wala ñu koy bind wala ñu ciy interprété par justice ndax dañ dañu jiin terroriste xam nga loolu tamit Sénégal ak doomu sosoo ba tey Sénégal kenn mësu koo xam ci violence Sénégal kenn mësu koo xam ci affaire terrorisme mooy Sénégal ban ay juif laay toogal ñu naan ma Amérique fii ñu ne ñaari xeex la dañ bokk na ñaari xeet ñu gën a wóolu fii mu ne ma mooy sénégalais ak burkina bi mu ne duñ sàcc nangu nañ liggéey waaye am nañ fulla duñ def comme li yenn nit yi def yenn xeer mooy topp ci ginnaaw di ko maral di ginnaawam juif moom wax loolu juif mu ne sénégalais du topp doomu aadama comme yeneen gars yi di gis sa patron di ko su jóot di daw def kii sénégalais mun da lay liggéey ci fulla te soxlawul sa alal kon donc image boobu ñu am mu rafet kon suñu leader yàq ñu naan ay ay ay jiñ affaire terrorisme yi xam nga loolu loolu loolu sagaluñu mën nañ ko jàpp def ko na pour gain la cause pour ñoom li ñu bëgg mu am ñu jox leen waaj ñu jaar koy jàpp mel traité ko toroxal ko def yenn affaire mais yokk ban grandeur Macky Sall ñun li koy ñaan mooy pas yi mu commencé teg na ko continuer teg réew mi na ci jàmm comme ni muy otage da leen di bàyyi otage politique yi mu jàpp euh, excuse me gars yi otage politique yi mu bàyyi leen ñooñu ñibbi seen i mbokk réew mi na ci jàmm Macky Sall gouverne trois ans ci jàmm ñun ñëpp ñu bokku nday bokk bàyyi léegi maa ngi gis ñoom Aliou Ndiaye ñu ngi commencé génnaat di teg ay projet pour jeunes yi pour man Macky Sall loolu moo war nekk majeur combat am guddi yuñ toll mais pas ay détails politique ay détails kii rafetlu wuñ ko saaga ñaaw na trop ku ku li maam Yakhya Mbaye wax rek kuñ saagawul sa yaay doo xam saaga ni méttee mais de problème mooy que ni am na ba pare ñaaw na ñëpp kenn rafetlu ko mais pour man verbal moo ci ëpp solo ñu yamale nit ki verbal pare ci avance loolu parce que état da ngay am prix de am euh, grandeur quoi am yoo xam doo ci dugg ay weccal la ay détail Macky Sall def na ko li ñu ko def ba pare ci Sénégal so buy dugg ci ay détails yii ñu ko ciy buux ñun bëgguñu gis tool ñu Macky sal bi ñu bëgg a gis ñun en tant que sénégalais mu ñuy représenté euh, partout dans le monde mooy Macky Sall bu am grandeur Macky Sall boo xamante ne ay leader am da koy wane day génn askan bi bëgg ni Macky génn na ñu koy gis di di gis suñu président di ko ci toro mais Macky Sall bu xoolee diaspora bi kenn ci toro woo ko parce que tam ñun ci Sénégal mu neex politicien mu naqari politicien diaspora bi dañuy apporter lu bari ci couche politique bi ba ñoom ci seen bopp wax nañ ko seen bopp ni ku ñàkk diaspora bi da ngay ñàkk ba moytu nga ñàkk nguur parce que lan diaspora bi dañuy apporter seen cause politique internationalement ba pare ak seen biir famille ak di waxtaan ak li ñuy def ci wàllu économie Sénégal soo fexee ba am relation ak waa diaspora loolu la Macky Sall war a liggéey te loolu mooy li nga xam moom moo ëpp njëriñ te jàpp Assane Diouf tëj jàpp euh, euh, euh, grand Ousmane Tonkor di ko jéem a indil ay problème pour ñu rapatrier ko loolu yokkul dara Macky Sall loolu loolu benn benn course bu bu ndaw bu mënoon mbatas la rek di ko laal parce que ma ñàkk wax ci loolu li ñu ñaan nag mooy ñun ñëpp ñu nekk ci euh, extérieur ñu signé pétition bi wane ne Ousmane Sonko du terroriste kii bëgg réew moo ko jàpp ak ni réewam di doxee ci wàllu gestion moo ko neexul xëy na nag waxeen day am mu ëpp comme Amérique fii li fi am liberté d'expression you know freedom of speech like you can say whatever you feel like it's fine nobody cares so loolu moo am fii donc peut-être loolu la jàpp bëgg ko doxal ba Sénégal def lu mu wax wax lu mu wax mais li ñu ñaan yàlla yàlla na ko ci yàlla génne ñëpp ñu nekk dem signé ci pétition bi yéen ñu fi nekk ci pétition baa ngi daw Facebook ngeen signé ko américain li mu xam mooy pétition pétition bu bëree ñu ko signé rek incha allah yàlla mën def ñu bàyyi ko ci jàmm ak salaam loolu benn la deuxièmement dégâts mu ma nag quoi bu leen ni damay dégâts mais man sama problème mooy koo xamante ni dama ko yàgg seetaan quoi franchement mës naa wax sama benn téléphone peut-être fàtte na ko yàgg na mooy Maxtaar la Kawulaar Maxtaar la Kawulaar lan mooy problème am ak Ousmane Sonko ak ñooñu Ousmane Sonko ak journaliste yi nga xamante ni nii buñ dañoo wax waxuñu lu lu baax ci Ousmane Sonko waxuñu lu bon mais dañuy def seen liggéey lan mooy problème am ba ma taar sax instant mu génn ay affaire c'est-à-dire nga man benn affaire nga ni su ma la nawee ndax benn comportement dafa am loo xam ne da nga ko war a ne mel mais mataar yii muy def wallaahi boo ko waxee yàlla ma seetlu njëkk naa toog ndaxte am na ku ma xam ki ma boole moom ku mu xam nii bu baax sax moo ma joxoon numéro am boole mais ay détails yu li ñu jot a ñoom ak Y'en a marre yëpp am na lu ma ci dégg mais nit ku nekk am nga sa ayib ba ci moom am na ay ayib boppam mais pour pourquoi nga bëgg fi nekk Pape Alé Niang sulaar la Pape Alé Niang day c'est-à-dire maanaam maanaam matière détails yooyu muy dugg man gis nga gis nga gis nga fii ñuy nekk ci live yëpp di wax fi nekk am na ci ñoo xamante ni ñu ngi dugg ay détails polémique ci vie privée jàmbur ci waxu ñàkk fayda ci ci ci ci juge doomu aadama yi yooyu da ngay tardel sa bopp man boo gisee sama live yëpp ci gestion laay wax nu réew mi di doxee mais jamais may focaliser wu ci benn doom aadama wax loo xamante ni mën na vexé njabootam wala c'est-à-dire loolu lan la lay yokk ci li ngay xeex yow problème bi lan moo war nekk Ousmane Sonko euh, nekk Sénégal leader opposition bi ñu ñi toog jiitu ko ñëpp nangul ko Sénégal bëri na ñoo xam ñoo ëpp maxtaar waraal xam-xam ñoo ko ëpp juddu ñoo gën a ëpp dayoo ñoo ko gën a ragal yàlla mais ñu ngi topp ci ginnaaw Ousmane moom mooy kan ba à chaque fois bëgg noo non waxewu ma fi saa il faut que nga baram nga mënul nekk laa ilaha ula wa laa ilaha ula tey damay mel nii suba damay mel da ngay mën a nekk da nga supporté Ousmane Sonko wax ñu la nga supporté ko blindly maanaam doo gëmm doo xool da ngay topp rek tax comme man moom noonu laa dal Ousmane Sonko man moom aroon keer lu mu def baax na mais wax ñu la nga toppee ko noonu mais nga cohérent ci say wax mais yaay wax li suba ginnaaw suba nga wax lee ginnaaw suba nga ñëw pour jéem a yàq ginnaaw suba nga ñëw jéem indi ku ko jege nga yàq ko c'est-à-dire Matar il faut que tamit en étant julit nga bañ di toog di wax naan diw sulaar la ay ay mandikat man ay séeréem du ma doy kañang kañang Matar wallahi am nga say ayib yoo xamante ne xam nga ko bu baax te waxoo ko te am na ñu ko xam te waxuñu la ko génne lu weer la ko saa doomu aadama ci ku benn côté da ngay maandu ci nit ndax man nit du ma gis may attaqué personnellement ku ñu live gis nga mën ah, même ci ñu euh, patriote yi live am na ci ñoo xam bu ñu waxee ñoo xamante ni neexuma ci Abdou Karim Gueye sax maa leen eh da ngeen respecté opinion nit ki. parce que Abdou Karim Gueye barki dem génn na fi wax leen lu ko neex Ousmane Sonko ba dama ko respecté parce que gëm naa ne foofu ànd ak Ousmane Sonko mais dama ko respecté mais Matar su fekkee dafa ànd ak Ousmane Sonko wala gëm combat Ousmane Sonko mën na génn Ousmane Sonko bu def loo xamante wala mu ko ci loo xamante ni moom noonu la sentiré mais di créer ay laa ilaha illa wala di def ay affaire yoo xamante ni ci wàllu côté man damay jàpp affaire fumisterie la parce que mënoo xëcc fii tuba fii su nga wax Thierno Alassane Sall fii ginnaaw dogal nit boo ko bëggee bañ da ngay sonn xam nga da ngay sonn parce que askanu Sénégal Ousmane Sonko li ñuy wax chaque jour pexe yi mën na jóge fu ne mais yàlla mooy def ni ñu ñoo ko bëggal seen bopp ni ñi ñoo koy jégal seen bopp nit ñi ñooy sonn ngir Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko sonnul ngir ngir ngir ngir ngir suñu jëmm ngir Sénégal gépp jariñu cest à lan mooy sa problème ba instant bi se instant nga jéem uti preuve damaa may preuve damaa def lii damaa def lii man loolu moom franchement parle ak nit lu ma la naw naw ak loo ma la déglu déglu ba ci sama jarbaat nga xam codda murid am na benn jour benn live bu ma neexul damaa dem ni ko jarbaa tey mu kontaanu ma quoi mu ma noo tons ma parce que pour man respecter nit ki lu mu waxee ceddu day wax noo xamante ni des fois da la la laal refis mais gis-gis nam la mais mën nga dem ni ko aw oh ceddu nii moom naa kam nga mu jàll quoi mais nga bëgg fi nekk chaque instant nga bëgg ay ay ay Thierno Alassane Sall parce que euh, dafa mel ni Thierno Alassane Sall moom tamit dafa am loo xamante da ko métti gis nga affaire bi bul la suñu borom ku ko teg sa kanam jox la ko kenn mënu ko foqati coow fekk suñu borom nangu ko sa leadership bi Ousmane Sonko Khalifa Sall mën na mën na ni nijaay la ci Ousmane Sonko Barthélémy Diaz mën na ni frère la ci Sonko mais tey ñooñu dañoo dañoo deful ci pôle def Khalifa euh, euh, Sall dafa def lu ñu deful mais xool nañu ànd ak Ousmane Sonko mu rafet Ousmane Sonko même ba ci projection livre bi sax ñëw na invitation sans invitation ñëw na apporte siem c'est-à-dire nit ki da ngay da ngay dans la vie il faut que ñu nga tey man li may wax ci Ousmane Sonko bu ko Macky Sall rafetaloon ci ni muy mujjantelee wallahi sama yoon ñëw ci ku ma mere ku ma jàpp ku ma bàyyi dama naan Macky Sall lu mu mujj def dafa rafet dama ci ànd man loolu laa gëm man damay demee parce que nit ki booy wax te waxoo pour lekk waxoo pour ñu jox la waxoo pour ñu tàcc la waxoo ngir la lu dangay wax sa diggante ak yàlla ku def lu baax ak fu mu mënti bokkoo di ni lii baax la. léegi léegi dama ne ñoom Aly Ngouille Ndiaye bi ma projet yi pour jeunes yi damaa kontaan parce que projet agriculture war a yaatal booy financement ñu liggéey kon Macky Sall am na ci loo xamante ni comme nee na dégg na ko kon cela veut kon teg na ci am na ay gestes mu koy dañ koy rafetlu ba pare ne ko bàyyil otage politique yi ñu kon ne liggéey suñu Sénégal man foofu laa taxawee mais bu leen ni ni may waxee Ousmane Sonko ak xër gi rek day tax ni ñeneen ñi bu ñu baax dama wax mais su ma soxla Ousmane Sonko mooy yor su ma soxla Ousmane mooy nekk président mais pour l' instant Macky la fi fii ba deux mille vingt trois tamit dañuy positif quoi tey kenn xamul sax ndax Ousmane Sonko di nekk président 2024 incha allah yàlla moo yor bakkanam yàlla moo yor moo yor moo yor mbir mi ni ko neex la koy defee soo Thierno Alassane Sall warul di déglu yenn booy ñu génn di ko défendre mel dañuy créer ay noonoo suñu diggante ñun ak moom loolu Matar bu ko commencé da ko war a freiner ndax des fois Matar créé information kenn xam fu mu ko jëlee indi na benn avec kayitam nee na Siré Dia 2018 doon fay Pa Alé Niang mu war koo défendre kañang kañang kañang so waat gisee Pape Alé Niang mënu ko défendre ci loo xamante ne luuma la du ko défendre ay noppi mais bu gisee xamante ne dañ ko ci nar attaqué mu nekk loo xamante ne du yoon te da ko fay pour mu liggéey ko loolu mu ne ah fii kat dañ ko ci bopp askan wi mais bu sooy jël lu bële bu ko neexee mu maandu ci keneen beneen journaliste def investigation comme Pape Alé ba am yenn information yi cest il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi bu ñu bëggee mere nit ki wala bëgg yàq nit ki rek dañuy jaar ci ay li olof di wax nit ku lay wut jéem-jéem jotu day seet fu la gën a jege mu jaare fa jéem Ousmane Sonko mënoo leen ko kal fenn fa ngeen jéem a jaar ci Adji Sarr Adji Sarr bu sottul ngeen jaar ci Pape Alé Niang Pape Alé Niang bu sottul ngeen jaar ci euh, keneen léegi na ngeen fexe ba na ngeen jaar ci man man nag boo leen jaar ci man na ngeen fexe ba na ngeen wutal massage man moom massage rek laa soxla boo leen jaar ci man ci massage da ngeen may jàpp jaar leen ci man ci massage rek alhamdulilahi rabbi ginnaaw bi ñu sant yàlla si jinu ci yonte bi gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi sant son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou Ahmadou mu sell mi da ngay tëdd day fëgg sa dënn ci Ousmane Sonko yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar ñaan yooyu nag maa ngi koy ñaan ngeen yaakaar ñaan ñaari caxana yàlla na ko yàlla làq fa yàq yeegul dama koy ñaan di naafi la guddi di ko ñaan di ko naafi la barki alxuraan di dëpp jëbi di ko dóor ci suuf danga ko yaa allah ngir yàlla bu ñuy seen dama koy ñaan teg ñaan gi ci kot xoolal ak sa ñaan gi Macky amul loolu ak ñi gars yi nii amuñ yi amuñu li saway am Ndeye Awa Sagna Mbaye ak Mbaye Dramé jour bi ñu coow tuddee seen kuréel fañ toog yor seen sajaar naan di julli ci yonent bi di ko sànni sang bi di julli di ko sànni di julli di ko sànni c'est-à-dire ñun suñu dimension politique gars yi bokkul quoi ñun ñun ñun franchement xoolal waxoon naa ko fi ñenn ñu mere ma mais parce que day bay du benn quoi billahi xoolal guddi la. garaawul ku nekk mu rongo yor naan yor naa pass yor naa pass mais ku ne ni booy mii sa làmmiñ tàqamtu ko ki am pass dina mante gi mais ki yor day béy naan parce que bokkul ñun pass la ñu yor oh da leen ma dégg que li may wax dafa dafa kawe ñun pass la ñu yor yoruñu day béy il faut que ngeen comprendre loolu. man kaane lillahi kaane laahu ku nekk yàlla yàlla nekkal la mun boor wu bi ñu jéem a nekkale yàlla waaye yàlla nu ne la ñuy suturaale nu ne la ñuy suturaale nu ne nu ne mais xoolal barki démb rek booy bi génn fii booy parcelle bi ñu nekk ci dëj di la jënti dëj bi yàlla na yàlla yërëm booy bi ñu nekk di ñaan patriote yëpp di naan yàlla na yàlla yërëm booy bi mbokk booy bi xaw ma ni jaayam xaw ma cousin am xaw ma lu mu doon jékki-jékki ñëw créé ay sosam malheureusement yàlla daal di koy weddi ndaw si génn seetal deru sang bi gis nga Sénégal ngir yàlla nangu leen sang bi suñu Muntaxa gërëm na ko sa gërëm na ko ci suuf nag suñu Muntaxa da koy wax ci kaw da koy gërëm ci suuf ni ko xale yi toll nañ ci yow foo xamante ni boo la wóor génn leen nu génn mais ngeen leen nan leen dal bàyyi leen Macky àggale ñu dem démocratiquement ñaan yàlla gañ élection yi suñ mën taxaa ni ko am nga sama ngërëm sang yi mu yéeme lu leen nag dugal na nag dugal na nag salafis dugal na ci murit dugal na ci ñeseen dugal na ci ibaad dugal nañu fépp mais saa yi productif bu sénégalais bu parfait mooy man ñëpp laa yemale bëgg ñëpp kër gu ma dem loolay Sénégal mooy sama jëmm ji sama jëmm ji loolu man sama jëmm ji damaa dem ba man yëguma sama bopp ak muyuta ko tijaan ak ak jullit dong laay ci man ak sénégalais dong laay ci man kot boo xamante ni yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla dimbali gis nga mbir sang boo ci nekkee da ngay dem ba li ndeysaan Ousmane Diagne Ousmane Diagne Ousmane Diagne kooku beneen affaire la booy boobu boobu li muy moo garaaw nee na Dame Mbodj dafa dem ba dafa waane ci affaire Adji Sarr bi su koy waxoon da ciy waane Dame Mbodj di ci boole ay lamsal c'est-à-dire mu ngi mel ni Zidane bi muy yóbbu booy quatre-vingt-dix-huit France Zidane ni mu leen fubalee jàpp bal bi xëcc fii ñoom Ronaldinho nga leen di wat ñoom Kaka ñoom il faut bal bi quoi dambul islam noonu lay fooy waa APR yi buñ toogee plateau bu gars yi nar a génn sax mu dugalaal leen ci du débat aji sax xoolal laal benn rulaat laal benn kii dambuju waane ci dambuju waane nu ko doxal doxandoo ay bi parce que dossier bi dafa vide vide plus égal vide dossier bi maanaam dara c'est-à-dire doon dàngu noonu la noonu la ci noonu lay savourer bi suñu <laughs> oh, yàlla oh maa bëgg sang bi wax lan amin lu ñu am lu ñu mën di am yàlla nañu am yàlla lu ñu mën a ñàkk yàlla nañu am yàlla mais wax dëgg fa yàlla nekk patriote wala nekk passif passifien ak a neex stress zéro da ngay bëggee nice da ngay waane nii live xool damay live xool bax bi jaay xool waane nii lal loxo damb loxo nii xam nga savouré xam nga dafa dafa neex quoi ni ñu koy defee quoi parce que loolu ànd ak sang bi rek koy def bugg yaa damaa bëgg soloon na nga ko fay dégg li ma wax soloon na nga ko fay sa GPS boobu damaa nekk ci waxi sang bi te waxi sang bi boo ànd ak ay GPS di wax fii naan ay ay left right yooyu sama oh booy ivoirien bi laa àndal nii yéen a ngi dégg. damaa bég daal bég naa lool mais nag comme ni ma ko waxee sànq rek euh, na leen ñaanal grand Ousmane yàlla taxawu ko ci zahiran wa baatinan euh, li nga xam moom la noonu bëgg yàlla bu ko suñu borom def li nga xamante ni moom la état Sénégal di jéem a dàkk ci moom ci lu fekkee lu savant la yàlla bu ko suñu borom sottil yàlla mën na ko aar boppam yàlla na ko yàlla aar euh, tey wax ni ñu gën a jàpp gën a massifier gën a liggéey. pour nga xamante ni incha allah deux mille vingt quatre dañ lañ bëgg nañ ko am mais prési wax leen ma sang bi ne ko wax leen ma sang bi ne ko na laal tuuti zirik waay na laal zirik quoi parce que affaire teeng na trop te tamit ma xool mag yi sax des fois xool mag fan yi dafay perte poids dafa wàññee ko parce que xam nga booy bi dafa yàq na nelawam quoi franchement li ma waxoon rek ci ko conseillé pour mu dàq impôt domaine tooñ na mag trop tooñ na ko trop mën na koo bàyyi foofu booy bi syndicat di def li muy def du am benn problème mais booy joolaa bi nga xamante ni nii vidéo fan yi fan yi fan yi vidéo bi ñu wane ñu dóor ay kon foog ay kii nii ay boobu dafa yéeme de booy coolaa bii c'est que c'est que tiir lu mu def ci nit dafa garaaw moo ne jox seen doomi ñàkk tànk tiir ñu magaale ko ak baax ak def ci seen doom yi ay valeur jom ngor dignité ak a baax xarki alxuraan ande est-ce que ma amee taw bu góor bu matu sang laa koy tuddee de parce que aw ma leen nu mu mën a def parce que fii loolu rek moo fi solution su ma amee sama taw bu góor sang bi laa ko mën a tuddee parce que mënu ma ko tuddee leneen ma ko defee nit ñi mere ma sax nit ñi ko li wax du dëgg ci yow bi ñëw noddu sama taw bu góor ñu ma tuddee nañ ko son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou Ahmadou Ousmane Sonko noonu laa koy bindee ci kayitu ci bi nag nii ma ko waxee son excellence professeur président Cheikh Mouhamadou Ahmadou Ousmane Sonko ay daw waay ay daw nuyu la ma dàmbuj boo leen ko jotee danañ nuyu waa Birima du ñibbisi Sonko mii mu def ëpp na de Sonko mii xam nga Birima ponkam doon Birima nga yóbbu fi mu nii nii eh, et sama gars yi maa ngi dem ngi jégalu maa ngi daw parce que instant bii ñëw ma fi pour pour pour nuyu leen ma Maxtaar la Kagulaar ne woon naa ko tamit jaar naa fi mais nuyu leen ma Maxtaar nuyu leen ma Macky ñoo ko na bàyyi booy yi waay leneen Macky mu bàyyi booy lii amul benn kii waay am yokk ko benn grandeur ne ko na bàyyi booy yi man nag nee ko maa ngi ñëw Sénégal mu ñëwee garaaw xam naa aéroport laa wàcce bu jàpp ma garaaw mais man de garaaw man de bu ma jàppee nga maa ko Macky man comédien laa rek garaaw de man de bu ma jàppee <laughs> daanaka artiste yi ngay ngay porte président parce que da ngay wàññi benn comédien boo xamante ni moom loolu man de bu ma jàppee daanaka rek ma jàppee Sonko yëngal de man man sang daf maa fonk billaay wallaay daf maa fonk boo ma laala rek boo ma laala dig naa boo laal xolam naa kenn du ma laal Cheikh Diouf boy li ma wax ni nga nekkal nit tey Cheikh Diouf patriote bu mag la moom tamit ak a gëm xeex combat bi mais ma tun dama koy shout out birim moo xam de ndaya birim fu mu dem moo xam anyway sama gars yi sama bëgg di nekk nii quoi di defee di kii xam nga Macky Sall leen sama live yi ndax parce que sama live yi <laughs> koy seetaan yëpp maa leen di yëg wóor na yàlla ponkal yi koy seetaan yëpp maa leen la ponkal laa de ponkal yi koy seetaan yëpp maa leen di yëg maa ngi jot seen message bëgg xam ngeen seen bopp yàlla na leen yàlla defal mais ku ci ànd ak Macky da wax dëgg dégg ngeen ndax Macky ñàkk ko wax dëgg rek moo ko yóbbu fi mu toll nii mais incha allah comme que nañ ñaan yàlla yàlla na ressuscité rek ba dellusiwaat ci jàmm ñëw liggéey réew ma quoi donc tàll leen loxo ñu def ñaan tàlla tàggoo xam naa ne bëggoo ma tàggoo fi ngeen nekk di rek mais man maa ngi tàggoo auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billah allahuma ballaxnaa fi ramadan allahuma ballaxnaa fi ramadan allahuma ballaxnaa fi ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahuma sali sababal diina inda al islam اللهم سهل السباب الدين عند الإسلام اللهم إنا أسألك الجنة ونعوذ بك الله من النار اللهم إنا أسألك الجنة ونعوذ بك الله من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحتانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من حولنا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 pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.